ndax lii ngay bëgg a dugg moo gën ci yow waaw wala déet sëriñ Ahmadou Mbacke borom def gis dalay defal liste listixaar wax la ni ngay def dangaa bëgg kaaraange ci sa bopp mbaali la wër dangaa bëgg ku la jiboole ki nga nekkal dangay xëccu ay sànce wala ay marché sa yaakaar day faral di tas wala danga am yitte joo munta wax kenn ak lu mu mën a doon gaaw wala gaaw jokkoo ak sëriñ Ahmadou Mbacke borom def gis ci mbaaxu yàlla sa aaju dina faj yàlla baaxee na ko mu yore ay jaaro yu gaaw ci li nga bëgg ay ndombo ci wàllum bayre wala sax tul gisee ak moom rek sa aajo faju daw leen gaaw gisee ak moom samedi ba mardi mën ngeen koo fekk Dakar Patte d'Oie mercredi ba vendredi mën ngeen koo fekk fii ci Touba Darou Khoudoss wala sax ngeen jokkoo ak moom ci 77 690 82 74 77 690 82 74 yittey Serigne Ahmadou Mbacke borom def kiis moo di tàggale leen ak seeni njàqare dalal seeni xel waaw aousubillahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba barke borom Touba waaw li nga ñu laaj euh, maanaam dafay gën a dolli suñu mbégte ndax màggal gi ñu ngi koy waaj ginnaaw bu ñu nuyoo sëriñ mun taxaa di ko ñaanal suñu borom mu guddal aw fanam te yàgg noo jiite yàlla may ko wér gi ak tawféex gi bépp liggéey bu mu tàmbalee yàlla na egg ci ayam ñu ubbee ko ci ayam ndax nit ñuy waaj màggal bi dañoo topp ci ginnaaw sëriñ bi rek ndax ci kàddu yi njëkk dafa wax ni mi ngi waaj nañu waaj màggal gi nañu ko daan waaje su ñu demee ba egg sa lu mu laaj rek ñu def ko kon man boobu la sama xel dal xam ni dinañ màggal ndax man sëriñ bi doxalinam dafa ma neex neex boo xamante ni depuis feebar bi amee dama gis ni juyewul mukk état juyewul ak tamit médecin yi ci seen i digle a te teewul mi ngi doxal diine islam gi ni mu waree mi ngi gën a ñoŋal liggéeyu Serigne Touba bi kon tey doxalinam ñun foofu la ñu sukkandiku kon ñun fii waa Soumbédioune ñu ngi waaj màggal gi nañ ko daan waaje di waaj safar gi ñu fi daan def it nañ ko daan waaje suñu demee bëgg ci bis bi lu mu laaj rek. ñu def ko comme ni ko sëriñ bu waxee ndax dañ ku am ku di doo lakk te dañoo am kilifa gu mat kilifa te béppi feebar bi amee doxalinam wane na yoon woo xamante ni ñun doxalinam moo dalal suñu xel kon li mu doon mat na ko sëkk ginnaaw loolu waa Soumbédioune ñi ngi waaj safar gi nañ ko daan waaje ndax ba ba tey jii sax am na ñu ma ci soññaat ndax am na ñoo xamante ni pare nañu seen gaal pour war a gëti njaalu lu ñu am dañ koy def ci safar gi kon wàccaay foofu la tàmbalee ginnaaw bi tamit suñu mbokki soxna yi fi nekk ñoom it ñu ngi koy waaj nañ ko daan waaje fu ma romb ñu wax ñu safar bi safar bi kon màggal gi moo na ci xolu gaay yi kon Sëñ Tuubaa la gaay yi gëm ndax it bis bi fi ñu toll toll nañu foo xamante ne ñun ñun yëgatuñu corona ndax bari na ci ay mbokki taalibe bu yàggul dara lañ lañ fa bàyyeekoo dem Touba siyaare ñi yóbbu seen addiyee màggal yóbbu ko ngir lan wàccaay màggal gi kon ñun yëguñu corona bi ñun ñun sëñ Touba lañ kon yëg googu ñu yëg sëñ nag ci la ñuy dàqal lépp luy lor te feebar bi yàlla na ko fi sëñ Touba jële ci barkeb dooley màggal gi ñi ngi wax ni Soumbédioune ñi ngi waaj seen safar nañ ko daan waaje képp koo xamante ni daal nga ci teew ñu ngi la koy yëgal di occasionné waale bu baax a baax a baax baax ndax it amul dara lu ñu ñuy tere dundal bisub sëñ tubaab bi comme nam ñu ko waxee woon ndax sëñ Tuubaa dañ ko jox suñu bakkan jox ko suñu dareet mu laaj ñu suñu ñàq kon loolu moo tax ñu gën a sawar ci wàccaayu màggal gi ndax ñun jamono bii bu ëgsee suñu xol day tooy ci Serigne saaliw ndax jamono yii dañ daan dégg kàddoom ci média yi muy wax ni de nañu waaj màggal gi ne ko sëriñ bi daan diglee su ci noppee teg ci gàmm gi kon man jamono bii heure bu ñëwee sama xel mépp day dem ci suñu Saliou ndax bi may nekk ndaw dama yàgg dégg kàddoom ci jamono bii kon tey am na lu ma marqué waat ci sëriñ saaliw yàlla na suñu borom doole koy leer taas nañ ci barkeem màggal gi ñu ngi koy waaj nañ ko daan waaje baa nu ko raw ndax bari na ay mbokk taaliba yu fi bàyyeekoo dem yóbbu seen addiyee màggal te loolu am na ñoo xamante ni ren lañ ko soog a tàmbalee